alhamdulilahi rabbil alamin mbokki jullit yi noo ngi màggal allah taala wa tabaraka di ko gërëm di ko bàkk di ko jéggalu di ñaan mu jéggal na suñuy bàkkaar waaye noo ngi julli tey selmal ci ar muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom aki sahaabaam ak taabiina lahu bi ihsaanin ila yowmi diin mbokk yi ci yàlla sunu xutba tey dina tënku ci ci ñaari tomb benn bi mooy binaamul kubuur yi fil mafaajib awil abdulxaq maanaam tabax bi nga xam ni ñu ngi koy tabax bàmmeel yi ci biir jàkka yi jàkka yi nga xam ni néegu yàlla la yàlla ko moom xam ngeen ni borom bi dafay wax ni wa anna al masajida lillah fala tad'u ma allah ahada borom bi neena na jàkka yi jumaa yi yàlla moo ko moom kon bu ñu fa woo keneen ku dul yàlla waaye bu ñu fa def leneen lu yàlla gërëmul te xam ngeen ni suñu société bi suñu dëkk bi da gis yi gën a grave këru diine yi ñoo koy def nitu diine yi di ko def saa boo ko joxoñee wax ko nag am kenn ku nekk nu mu ko gisee lu dul ni rek da koo war a jàppee conseiller ak dimbalante ndax nekk kilifa diine wala bokk ci këru diine tekkewul ni duñu def lu yàlla tere te li yàlla tere ñépp ñoo ci yem amul kilifa diine bi amul kilifa aada bi amul nit ki ragal yàlla amul nit ki simple tere yàlla tere yàlla la ñépp ñoo ci yem amul nag ci bindee fi kenn koo xam ni il est indispensable ba mu defee lu dul noonu kenn du ko ko wax loolu amul ci diine yi amul ci umma bi nit noo mën ci toll même boo dee yonent boo deful lu dul noonu dañu la koy wax ñu bàyyi léeg-léeg ñu naan ay orma ay orma nit bu xottee orma yàlla mënatul am orma su xottee orma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënatul am orma yonent boobu nga xam ni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñun ñëpp xam nañu ku dëggu la te ku ñu dëggal la ndax yonent du wax bànneexu bakkanam wa ma yantiqu anil hawa borom bi nee na muhammad bu waxee bànneexu bakkanam moog yéen bokku leen yéen ku mu neex ci yéen mën ngaa wax ngir sa mbokk mën ngaa wax ngir sa bopp mën ngaa wax ngir say intérêt mën ngaa wax ngir ragal waaye muhammad moom melul noonu sallallahu alayhi muhammad moom li muy wax lu ma ko wax loo day doon lu dul loolu du ko wax kon wa maa yantiqu anil a in huwa illa wax rek la imma muy ñaar muy benn ci ñaari waxyu yi alquran bu ñu ko wàcceel jibril indil ko ko te kenn mënu koo weddi wala sunna bu nu ko wàcceel borom bi jox ko ko insha allah yonente boobu moom moo ñu waxoon di ragal loo aw xeetam ñu tàbbi ci bokkaale te xam ngeen ne xeet wi tàbbi nañ ci bokkaale léegi ba nuróog xeet ya ñu jiitu woon muy al yahudu wal nasaara ñëw na ci saxiixayn muy téere imam buxaari yi ak muslim mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne da ngeen topp yoonu ñu leen jiitu woon xeet ña leen jiitu woon yéen xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam topp ñooña benn par benn suñu tegee paa ngeen teg fa su ñu tegee jéego ngeen teg jéego même bu ñu nattoon seen loxo raamee ko da ngeen ko raamee yonent bi nee na même bu ñu raamoon ngeen raam bu ñu dawoon ngeen daw ngir ni ngeen doon di toppee yonent bi nee na dem na ba ñoom bu ñu raamoon wala ñu bërëngu dugg ci faxu mbëtt yéen da ngeen ko def loolu lu muy tekki mooy roy bu jéggi dayo bi mu waxee ni saxaaba yi ci jaaxle ne ko xanaa li ngay jublu ci xeet yi ñu jiitu woon mooy yahud ak nasaara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee bu dul yahud ak nasaara kan laay wax li ma bëgg a wax kay mooy da ngeen dem ba bàyyi seen diine seen jàngale diine di topp jàngalem yahud di topp jàngalem nasaara wallahi mbokk yi li yonent bi wax ku ko seetlu ci ñun te yàlla rek tax danga xam ni dëgg bu bir la tey bokkaale tasaaroo na ci xeet bi yaatu na ci lool lool lu ñuy gis la di ko dégg amut lu kenn di làmbatu li ñuy wax fii ku nekk ci ñun yaa ngi koy dund yaa ngi koy gis muy lu mel na ndax bàmmeel yi dugaluñ ko ci jàkka yi defe naa ni laaj boobu bu ma ko laajoon yéen ñëpp da ngeen di wax te ñenn ñoo koy def fii ci suñu réew këru diine yi ñoo ñu gën a naw ci Sénégal nga xam ni bu ñu wootee nit ñi fekk si leen suñu waxee nit ñi ñëw ñu yaakaare leen mbaax bu jéggi dayo ñu ñoom ñooy bokkuwee jàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñooy teggi li Muhammad jàngale sallallahu alayhi wa sallam xëy na looloo tax ñu bëri duñ ko ñemee wax ndax dañuy jàpp ne ah ñii kat ay kilifa lañ yaraaw nangam nangam ñun ñooy jël sunuy wàllu yàlla di leen suul ci jàkka këru diine yi bu leen neex ci Sénégal dem leen kër bu ngeen fa dem rek jàkka ne jumaa ja suul nañ ko kilifa bi et pourtant kilifa bu mag bi da koo tere ki yàlla yónni da koo tere waaw léegi ndax. li yonent bi xaraamal keneen am na droit def ko ndax li yàlla xaraamal sëriñ bi am na droit def ko wala ñu defal ko tontu bi defe naa moom mooy déedéet ndax kenn amul exception ci def lu ñu tere kon këru diine yi kilifa diine yi nga xam ne ñooñu waroon a jàngal ñun jubbanti ñu yar ñu wan ñu ndax dañuy woote woo bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee ni ñooñu ñoo koy def te li may wax nii ci bu dee ci suñu réew du ay nit ordinaire lañ koy defal ñun ni ñuy àttee selon ñun ñun selon ñun dañoo am ay nit ordinaire ak nit royal ñun loolu la ñu am loolu moom ngeen ngeen baal ma ci wax gi mais ñun dañoo am ay nit ordinaire nit ordinaire yi moom mooy kon ñun cembel cembel gi ñooñu quoi ñun ñi nga xam ne suñuy sant dañ ko fortaat ñun ay nit ordinaire lay wax mais nit royal yi nga xamante ni ce sont des rois dañ leen a yaakaar ay nitu diine lañ dañoo jàng di ko bàkkoo di bàkkoo seeni maam di bàkkoo seeni baay di bàkkoo mbaax ku fi seeni maam defoon seen maam yooyee la ñu suul leen ci jàkka yàlla yi ku mu neex bul sori yoon ñu saxal léegi nga gis li may wax kon wallaahi li yonent bi terewul ñu ngi koy def li mu xaraamaloon ñu ngi koy def dem na ba nit ñi danger bi gën a bon mooy àgg na ci ñooñu ñu suul ci biir jàkka ya ñaanalatuñ leen yàlla jéggal mais dañu leen di ñaan ndimbal dama ni ñooñee ñu suul ci biir néegu yàlla ya nit ñi ñaanalatuñ leen yàlla yërëm leen ndax musiba biñ leen tegal waaye léegi dañ leen di ñaan tafridil kurbaat dañuy ñëw dugg ci biir jàkka sëriñ bi ñoo ngi lay ñaan yaay nangam nga xettali ñu te moom dañu koo war a xettali moom ndax def nañ defal nañ ko lu xaram boo ko santaane wala santaane ko mais yii ñu ko defal moom lu xaram la moom ndax dañ koo suul ci biir néegu yàlla mais sëñ bi kenn ku nekk ci ñun sa saal ba ngay toog di fa recevoir say gan doo ko dugal sa baay bu deewee doo ko suul déedéet mais ñun dañoo jàpp ni ku génn àdduna rek bu fekkee ne yow ponkal nga dañ la war a dugal ci këru néegu yàlla ñun noonu noonu la ñuy àtteew wallahi li may wax nii man li may wax man la dal ci sama propre famille sama propre famille am nañ ku gaañu ñu ne dañ koy def ma àgg moom ba ma fa àggee dama leen wax ne carrément ñu def xaram affaire bi def ñetti mbooloo ñeent ñi sama grand yi naan ma déedéet bàlloog leen nga wax noppil coow baaxul man leen grand bàyyi leen coow baaxul lii moo taal Sénégal kii jaamu yàlla la woon nañ ko suul fa ñu suul nit ñi pourquoi ñu koy dugal ci biir néegu yàlla pour lan loola mbokk a li a grave nag mooy bu di demee bay ñaan ku dee et Sénégal dañu koy bàkkoo dañ la naan maa xam nga man jamono bi dama bokk ci ñu gën a sonn man damay romb aw nit sax ñu bëgg maa naqaral di saaga yàlla pour man ma mel man loolu la ma yàlla na toog damay dugg ci marché wala ci place di way ku ko bañ di yàlla ku ko pour rien que rek cherché Umar Sall ndax Umar Sall nee na ñu yonente bi da koo xaraama nga foog ni boo ma nee maaka yi mën nga ko def loolu ñi may àndal ñëpp xam nañ damay dugg ci bërëb kenn ku ngay commencé fii laa far lan moo tax parce que gis bi ñu gis ne li ngay xeex yooyu yàlla tere gisuñ ko mais dañoo gis ne yow da ngaa bañ mag ñi tey ñun foofu la àgg mbokk yi xoola borom bi li mu jox wax ci alquran nee na ana kan moo gën a réer yàlla mooy wax ana kan moo gën a sànku ñu ne yàlla kan moo réer kan moo sànku mu ne waaja nga xam ni day ñaan keneen ku dul yàlla te kamuy ñaan déggul la mu koy ñaan ndax mi ngi ci biir bàmmeel ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يالا لينا بروم بامبل بي سول في جمعه لي غاسكو نيان ديكولا يا والله نك يالا واخ دك نك واخ دك يالا نك نيو با نيو نك يالا واخ دك يالا نينا نيو بي غاي نيان مو خام تي جمعه لي نكو سول ولا تي بيتي جمعه لي نكو سول يالا لينا يوم مي كوي نيان دابور يوم ام اك دوف لا ام داخ دوف بيل نك dof piir mooy taxaw ci bàmmeel di ñaan borom bàmmeel dof piir mooy taxaw di ñaan ku dee mbokk nan ngay ñaanee ku dee te allah ne alxayu alqayuum yàlla nga dund ba fawwu te du dee nga bàyyi fi yàlla ne ko fi ñukk dem fekk waa joo xam ne sang nañ ko sang nañ ko suul ko ci biir jumaa ji dëpp ko fa tabaxal ko nga ñëw moom di ko ñaan léegi nag ñaari atte la sharia yi atte sëriñ bi buñ ko suulee ci biir jàkk ak jumaa ji xaraam na ittifaaqan jullee ko ndax ñun ju jàkka yu duñ fa jullee dañu fay jullee te li gën a garaaw sët yi ak doom yi woote woo ak sëriñ ñooy toog wéeru ci bàmmeelu seen maam wala bàmmeelu seen baay ci biir jàkka ji toog wéeru ci di def seeni xew-xew di wane ne ku tedd ki tëdd fii di wane ne waaju baax ju tëdd fii kii baax na tedd na mais li ngeen ko defal baaxul ndax da ngeen koo suul ci place yàlla jàkka yàlla domaine yàlla la domaine réservé la pour yàlla këyit yi yàlla ko moom moom la ñu ko attesté yàlla ko moom kenn warul dem ci propriétaire u jàmbur di fa def lu ñu tere yow ñemewoo nga ñëw ci kër jàmbur gas ko suul fa sa bàyyi ñemewoo ko boo koy def mu yóbbu la police bu génnee këyit dañ lay tëj parce que alalu jàmbur nga def pourquoi ngeen jël alalu yàlla di ko suul seen bàyyi di ko suul seen maam boo waxee nag dox bi xamul dara ne ci clavier wala ki yam yow da ngaa bañ mag ñi da nga nangam da nga benn dox buy wax na da xam ne kii xamul ci li mu nekk mbokk yi ci daal borom bi ne ne ki gën a dox mooy kii ñaan ku dee yaa Aïcha radiallahu anha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko feebaru dee ci kële nee na sàngaay bi ñu ko sàngoon mbàjj bi mu doon sàngoo ndax dafa sibbur woon nee na day jël mbubb mi di ko uppoo nii ndax tàngoor ndax tàngooru pali bi jàpp yonante bi moom lay uppoo nii léeg-léeg mu upp upp ba ci yàgg rek xëm nee na bu xëmee ba ximmali ko rek lan lay wax laanatullahi ala alyahudi wannasara ittaxadu qubura anbiyaihim masajid allahu akbar yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su xamee ba ximmaliku waa këram di ko xool jigéen ñi toog tiim ko muy waaja dee mu xam ximmaliku bu siggee xoolaat ñu xool ko kontaan mu ne yal na yàlla rëbb yahud yal na yàlla rëbb nasaara ñu ne ko lan moo tax nga ñaanal leen ak rëbb mu ne ittaxasu qubura anbiyaihim masajid ñoom day yahud dañoo defoon fu seen yonent deewee ñu suul ko ci jàkk dañoo defoon fu seen ambiya yi deewee fa ñu leen suul ñu indi jàkka tabax ko fa yàlla boo demee ci suuratu Kahf juróom yooyu nga xamante ni mujjoon nañoo dee ci pax mi ginnaaw bi ñu deewee ñetti téeméeri ak dekkiwaat te kenn ñemewu faa dugg bokk na ci bi nit ñi ñëwee ay yahud lañ kenn ñemewul dugg ndax law ittalaxta alayhim la wallayta minhum firaaran wala walita minhum ruuba kenn ñemewul tiim ñu ne kon la nattaxisanna alayhim luñ ci teg masjida comme ñii ñu baax lañ ñu ngi fii mënuñu leen a gis te dee nañ nañ fi def julleekaay di ko jaamoo yàlla loolu mooy saahid bi lay wan ni loola yonent bi da koo tere xeet bi aman na ñoom mu daganoon waaye bu baaxoon doo dégg yonent bi rëbb leen ndax yonent bi du rëbb bu baax laanatullahi ala yi wa nasaara la wax yàlla yàlla rëbb yahud rëbb nasaara lan moo tax dañoo jël seen bàmmeelu kilifa yi yonente yi dugal ko ci jàkka léeg-léeg ñu jël jàkka yi indi ko tabax ko ci kaw bàmmeelu yi ndax dañoo jàpp ni suñu suulee fii ku baax nit ki di ko xool diko gis leg leg dana ko taxa jaamu yàlla diko fatali fàttali ko moo tax mu ne ittaxadu qubura ambiyaai masaajid ñun nag ñu jël ko diko defal suñu kilifa diine kon nak lañu xol li yàlla tere li yonent bi tere ak ñun li ñuy def ndax correspondre ni su correspondre ci ko mënti def rek defo lu baax jëlé nañ ci jundu ibn abdullah neena samitu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul ala وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك جندب ابن عبد الله البجليني من ما ديك صحابي ما وحده كان نتلوما من ما ديك سما سمعتو يعني من ما ديك يونس النبي صلى الله عليه وسلم ابا موي غادي 5 cinq jours avant muy gaañu kon bi yonent bi waxee nii cinq jours la ci teg wala quatre jours mu génn àdduna kon wax jooju amatul lu koy folli ndax bi mu ko waxee ci jamonoy feebar la ko wax diggante bi dundaatul nee na man maa dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam avant moo gaañu juróomi fan muy wax ni xeet yeneen jiitu woon day daanañu jël seen bàmmeel yonent yee def ko ca jàkka yi mu a ak wa saalihiin ak seen nit ñu baax ña ñun nag amuñu ay yonent ay nit ñu baax la ñu am dugal leen ci bàmmeel yi kon roy nañu jaaruwaayu yahud jaar nañu jaaruwaayu nasaar ke nasaara yonent bi ne kon inni anhaakum an dalik eh dama ni yéen sama xeet bu leen jël seen ñu baax ñi suul di jàkka man dama koy tere inni anhaakum an dalik li yonent bi tere war ñu ko bàyyi wa ma aataakum rasula fa xuduuh wa ma nahaakum anhu fantahu yàlla neena lu leen muhammad digel jël leen ndax lu baax la lu mu leen tere ba leen waay waay bu leen topp mbaaxub aji mbaax ba fàtt digel muhammad bu leen topp mbooloo yi ngeen bokk ba fàttali yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam jëlee nañ ci sahih ummu salama tudd na ci jamono juróomi fan yooyu yonente bi muy waxee wax ji ummu salama waxal yonente bi xam nga ummu salama demoon na xabat ci jamono bi ñuy gàddaay demoon na xabat nee na bi mu demee xabat dafa gis seen église yi ndax foofu ña euh, ay loolu nee na mu gis foofu ci seen église yi ñu fay suul seen yonent yi ba pare dessiné photo yonent bi taf ko fa maanaam dañ fiy suul fii bàmmeelu yonent bi ba pare jël photoom taf ko ci côté yi ummu salama moo ni moom moo ko gis ummu salama fan ko gisee waxal ñu mu ne xabaar Éthiopie la ko gisee nee na bi mu gisee loolu fekk yonent bi di ñaan ñaan bii di wax yàlla yàlla rëbb yahud rëbb nasaara lu tax dañoo jël seeni yonent suul leen ci biir jaxte yi ummu salama nettali yonent bi fee bi ndax loolu moo ko ko fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam teg ca ne ulaika ida maata fihim rajul salih aw il abdu salih بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله الله يرد بنكو نونو mooy waa équipe yooyu ak ñu mel ni ñoom ñooy xeet yi nga xam ne ku baax ci ñoom ku lu yaakaaree baax bu deewee rek ñu tabaxal la jàkka ci sa armeel mbaa ñu dugal la ci biir jàkka bi suul la ba pare jël seeni photo def ko fa dessin na ko xam nga lu mu ko teg ulaayika siraarul xalqi inda allah ñi gën a yiis ñi gën a bon ci mbindeefu yàlla yi ñooñ la du sama wax de waxuma ko de yonent bi moo ko ulaika shiraarul xalqi inda allah yonent bi nee na ñi jël seeni nit suul leen ci bàmmeel ñoo yées ci kaw suuf su yonent bi nee ci xeet yële ña gën a bon ñoo jël seeni kilifa suul leen ci bàmmeel kon wax ji lan lay tekki boo xamee li muy tekki ñun suñu xeet ku jël sa kilifa suul ko ci bàmmeel yaa gën a yées ci yàlla bi du xas du saaga waaye xas bi yonent bi wax laa wax man yonent bi wax de waxuma yonent bi moo xas yonente bi moo xas moom moo ne ulaika shiraarul xalqi inda allah ñi def loolu ñoo yées ci nit ñi kon bu ñu dajale woon nit ñi nga leen di yaakaaree ak mbaax di leen sukkal di leen raamal yow sa yonente nee na ñii ñu bon lañ lan moo tax ñu bon parce que dañoo jël seen i bàyyi seen i maam suñ leen di jàkkal xam nañu wala xamuñu àtte bi loolu la kon bis bu àtte bi leeree ci ñoom dañoo war a dem sulli wali yooyu ñu suul ci jàkkee nañ ko sulli yóbbu leen suul leen feneen ndax mbindeef loolu suñu ko mënul ñu tëj jàkka ji bañ di fa jullee tabax beneen jàkka di fa jullee bu leen neexee nag buñ ko bëggee ziyaara ñu ñëw dugg ñaanal ko génn dellu mais jàkka jooju moom julli fa dafay xaram bépp jullit buy julli bëgg yàlla nangul la soo duggee ci biir jàkka ji boo jullee yàlla nangu ah loolu la def te ñun ñi gën ci ñun ñoo koy def laa ilaha illallah moo tax ma ni musiba gën te ñun li ñuy dal ma jeexalee xadis bi ci bunt bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na inna shiraara nnaasi man tudrikuhum saatu wa hum ahya wa man yattaxida al qubuura masaajid yonent bi ne ne ci yées ci nit ñi ñi gën a bon ci nit ñi mooy ñi nga xam ne bu àddunay tukki la leen di fekk ñuy dund gis nga bu àddunay tukki ku mu fekkoon ngay dund safara nga def àdduna jamono buy tukki ngëm yàlla day jeex day dem ba kenn dootul wax allah kenn dootul wax yaa allah kenn dootul wax allahu akbar kenn dootul dund nit ñi mbon la ñuy dund jamono boobu góor jigéen mbon la ñuy dund mboolem jamono jooju képp kuy tombeet bu malaaka di wal bursa bi ñépp safara lañ jëm yàlla ci yàlla yent bi nee na ñooñu ñoo yëpp ñu ne ko ak kan mu ne ak ñi jël bàmmeel yi dugal ko ci biir jàkka yi kon ak teg ñu dugal ci jàkka yi bàmmeel yi ñooña ñoog ñii dee mujjug yow ma fee mujjug bis penci ñoo bokk mbon yàlla nee na ñu bon lañu mbokk jullit yi maa ngi bàyyi loo xel sama bopp di leen bàyyi loo xel ci ngeen dégloo xel bu baax fi ñu jëm ak li ñuy wax jamono bu nekk nag ci sunu réew da ngay fitna yuy am di yokku coow di bëri mbokk jullit bi nañ leen taxaw ñun ñëpp ñu def waqfatu ta'ammul ñu seetlu lii xew ci suñu dëkk ci jamono ji ci ay mbindeef yoo xam ni dafa mel ni dañ leen a certifié ci xas yonent yi ak tuuti leen sewal leen tuumaat te nag wax dëgg yàlla nit ñi day dinañuy def lu bon lu bari waaye dafa nañ ni man li muy dégg ci lu bari ci ñii laa ko gën di dégg mbokk yi yonent al ambiya ashraful xalqi inda allah loolu moom defe naa ñëpp ci dëppoo yonent yi ñoo gën ci kaw suuf yàlla moo ko wax mbokk yi yonent yi maasumun yàlla da leen a musal ci def bàkkaar ak yenn bàkkaar yi mbokk yi yàlla musal na yonent yi ci jikko bu ñaaw jikko bu bon jikko bu salte rawatina njaaloo mbokk yi njaaloo ñaawul ah nan la nit di jëlee njaaloo di ko teg ci ku yàlla ne moo gën ci ñi ñaar moo am moom mi ko wax moo yiis moo bon ndax ku nekk xam na ni yonent mënul bon ndax yàlla moo leen baaxal waaye nag laa xar wax dégg nañ fi moom ci boppam kilifaam wax loolu ci yonent yàlla nuux wax nañ ko ci yonent yàlla nuux loolu wax nañ ko kon su ñëwee moom mu wax lii dafa mel ni rek yoonu ndox la dégg nañ fi doomam wax la même chose ci yàlla lu gën a grave ci yàlla wax lu mel noonu yàlla nga xamante ni ku ñu war a respecté la xale bu juddoogul tojagul ci fekk ne wax ci yàlla kàddu goo xam ni da ngay daal di jooy mbokk yi yonent du njaaloo ala rawati nag di njaaloo jabari doomam jikko ju suufe ju bon ju ñaaw ju torox jooju war nañ koo teg ci yonent moom ñu koy wax ku ko waxoon ci kilifaam àdduna tukki wallahi lii ñu yëkkati wax buñ ko tegoon benn kilifa ci suñu kilifa yi réew mii li ñuy njëkk a saisir mooy procureur la ñuy njëkk woo waaw Umar Sàll wax na dara suñu bàyyi Oustaz Diaby wax na dara suñu maam waaw on réclame sa sa tête on réclame sa tête boppam la ñu soxla xalifa bi génn ñëpp génn ñëpp wax parce que seen bàyyi la ñu sewal ñoom ñuy sewal ku yàlla bind ku yàlla yónni ak yonent li gën a doy waar la nit buy wootewee xam-xam lii mu wax fu mu ko jëlee wax nañ ko lu contre loola xëy na lii ko arrangé pour mu tas mbon la mbon la du leneen mbokk yi borom bi ne na kabura kalimatan taxruju min yàlla neen dañuy bi ñu wax dañuy fen min afwaahihim in yaquluuna illa kadiba te baat boobu ñu wax baatu yéefar la baatu kéefar la ku ko wax war ngaa tuub man na xam nga ñan laa yërëm ñi leen topp di leen déglu gëm leen teg leen fenn mbokk même boo gëmee nit bu newul ci dëgg ànd ci bër ci démb dafa am ku ma woo ñuy waxtaan tàng na lool départ bi waaw liy coow gaa yi coow daa nga leen xaar boo ci waxee naa dal sa kaw ma ko yàgg sa papa ak sa maam ñëw leen faalewu ma leen dinaa ci wax insha allah su wax ci jotee moom dama ciy wax programme nag sa sëriñ bii lii mu wax nii dinañ ko teggee ñëpp wax nañ mais maa ngi xaar di man sama wàll naa ko wax mu ne ah, ma ne ko ki nga àndal jubut jubut démb ci guddi six heures am na ku wax la même chose mais ma oustaz ñun de dañoo gëmoon nangam nang waaye génn na ci ustaaf léegi dañu lay déglu yow ndax li ngay wax nii loolu am na daa ah, man de waxuma kenn waaye dama ni lii lii xam ngeen ni lii moom kuy topp aw nit moom di sukk ci wetam gëm ay waxam moom mu wax lu contre alquran wax lu contre sunna nga ni moo ko say moo ko tay war ngaa xoolaat sa bopp dañ la endoctriné te gis nga lu bëri ci yenn këru diine yi sectoriel la gën a jëriñ wallahi dañuy endoctriné nit ñi dañ leen di dofloo ba bu yonente bi ñëwoon wax duñ la gëm parce que yi ñu sol ci seen bopp yi la dañ leen a sol sol sol ba booy xool nit ki di daanu di yuuxu di wadd mais genre bi xam ne li ñii nit nekkatu fi mais nit il faut nga am savoir vivre sa xel di xalaat kilifa beeg ñëpp a yem ku teggil yàlla ñu ne la eh sëñ bi da ngaa juuma ah. tuubal da nga war a tuub ndax lii ku ko waxoon sa papa du la neex ku ko waxoon sa yaay du la neex كن يجب على كل مسلم ان يدافع عن جميع الانبياء ان تعرض لهم احد بالسبب دا فا وور سي بيب جوليت مو ديفاندر يونتي سو كين واخي سي نيوم لو نياو كون سما ديفوار لا لي نيب واخ واخ نان دك تي نك ماني كو خامغي لي گنو رسول واجي نما نام مو نه سو سيرين واخ با باري كوميديان يي سخ ديكو ويت والله لول كو واخ مان كو كوميديان يي سخ ñu ngi koy weddi kon war nga xam ni wax bu teer a teer la wax te it wax bu ñaaw la maa ngi koy digal ñu gën a tuub rëy baaxul kenn du rëy ci kanamu yàlla kii mu waxal lii moo gën baayam gën maamam gën ku gën maamam ndax yàlla moo ne kii yonent la daawud yonent la mbokk yi dafa am ñoo xam ne yonent la noonu na ay dajjaal lañ ñoo yées ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na ñoo xam ne dañuy jël seen bànneexu bakkan di ko naxee nit ñi yonent bi doon ne innama axaafu ala ummati al a'immata al mudillin li ma gën a ragal sama xeet mooy njiit ay gidd yoo xamante ni dañuy réeralaate ay gidd la wax a'immata al mudillin ay gidd yoo xam ne dañuy réeralaate nga topp leen di leen déglu du ñu la waxal lu lay jëriñ ci jaamu yàlla doo toog mukk nga dégg ñu lay wax julli woor tawhid jaamu yàlla non loolu dañ ko dépassé dañ lay indil ay yu xomaat ci sa bopp rek di la dofloo ngay mbëkk miir di root di way waaja di way ngàll c'est un philosophe gis nga loolu du philosophe fii la dof la fii la dof dëgg la dof mooy toog di xas ku yàlla takk mbokk yi borom bi nee na wala tarkanu ila alladina zalamu fatamassakum nnar yàlla nee na yéen taalibe yi yéen nit ñi bu leen jeng topp tooñkat yi ñu ànd ak yéen safara de wala taskano même boo nekkee taalibeem bu jeng mu jëm ci moom bu ko jàppale ci bunt bii bu ko jàppale ci lu mel nii ndax lii boo ko jàppalee mooy ànd nga keneen bàyyi yàlla te fépp foo xamante ni nit ñi ngi attaqué yàlla attaqué yi yàlla ni bu ko kenn attaqué soo ko jàppalee ni ko yàlla alagee la lay alagee fépp tuubul wala nga tub kon wala tarkanu ila alladina zalamu fa tamassakumu naar mbokk yi ñu jël ñetti aaya rek ci yonent yàlla daawud li borom bi wax yàlla yonent bi lay waxal jamono bi ko waa Quraysh di dal di ko xas di ko wax lu bëgg lu ko metti يالا نكوني اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب الله يالا لينا يا ربي صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون من لين لا يخس لين لا يخس لين لا يخس لين لا يخس والله نيت خاصنا يونتي بي غير مان غير بغ مان لوما ميت تي فك خمو اصبر على ما يقول يا الله محمد مجل لي ني واخ يهودي دا نكو ديف نصارى دا نكو ديف مشركون ولا ني ملني نيوم دا نكو ديف دانيو بغ اتاكي س نغم نغم غير مير لولا نكار اصبر على ما يقول ليك نك ني غاي موجي خولال يونتي الله داوود واذكر عبدنا داوود ذا الايس daawuda borom may borom kàttan wala ni ñu ko waxal lu ne tuumaal nañ ko ko est que daawuda xuloo la est ce que xeex na déedéet kon yow muhammad isbir ala ma yaqulu muñal li ñuy wax amul benn problème su a jotee dana àtte waaye ki ñuy wax nii innahu awwaab yàlla moo ni daawuda innahu awwaab delluwaakoon ci yàlla yàlla dina jël kuy dellu ci moom muy nekk ku bon di njaaloo jabari doomam yàlla dana ko def yàlla dana jël ku mel ni tagg ko moom muy bàyyi yeneen jigéen bàyyi soxnaan bi ñëw ci ay jabar doomam jëf ju salte ju ñaaw ji bëy sax rus na koo def golo sax rus na koo nga di ko jiñ ab yonent yaa yées beneen aay bi lan la borom bi wax wa wahabna li daawuda suleyman ni'mal abd innahu awwaab yàlla nee na yont yàlla daawud maa ko may doom ju baax te doom jee ko ëpp daraja daawud moo jur suleyman mais suleyman moo ko ëpp daraja ci wàllu nubuwa fa wahab naa li daawuda suleyman yàlla nee na daawud maa ko may yonent yàlla suleyman niamal abd allahu akbar yàlla daawud la tagg niamal abd sama jaam bii moo baax niamal abd yow nga ni jaam boobu day jaaloo borom bi nee na innahu awwaab delluwaakoon ci yàlla la mbokk yi yonent yàlla daawud da doon sàbbaal ba montagne yi di sàbbaalal yàlla picc yi njanaaw yi xorondom yi ndax daawud ni mu mënee sàbbaal yàlla dafa tàmm di sàbbaal yàlla ba buy sàbbaal yàlla montagne yi di ànd ak moom di wax borom bi nee na wa saxarna maa daawuda wa saxarna maa daawuda wa tayr wa kunna fa'ilin yàlla nee na dama tàggatal daawuda sax montagne même njanaaw yi bu daawuda di tudd yàlla ya allah picc ya allah daawud naan ya rahman garab yi naan ya rahman mbokk yi teraanga bu toll nii ku toll nii ci ngand ñu di ko tuumaal tuuma bu mel ni moo tax Sénégal lu ne lu ne lu ne mën na fee ñëw ndax ñun ay dofa ñu jiite moo tax borom subhanahu wa taala loolu la wax leen ñaan rabbana la tuaxidna bima faala sufahaau minna am na ñoo ay dof lañ donte dañ leen jité jiite wiruñu su ngeen leen dof ñu duggal leen borom bi neena yemut foofu nee na maa may daawuda ngëneel ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير يلا لنا داود ما كم يجنس maa ko may ngëneel mbokk yi lii rek dafa doy lii rek daa doy ci tontu bi ki yàlla yëkkati tagg ko yow mënoo koo suufee yow yaa ciy suufee rek moo tax théâtre kat yeeg comédien yeeg ñépp dañuy dal sa kaw ruslu na nag ci ku ñuy woowee borom xam-xam ki ñuy woowee guide religieux ki ñuy woowee ngand ay théâtre kat sax dina tontu loolu rek doy na tontu ma ñëw ci benn mbir mu gàtt xoola yonti yàlla Muhammad dafay roy ba roy yonti yàlla daawud xam ngeen yonti yàlla moo gën yonti yàlla daawud def noo digal yonente bi nee na ahabu salaati ila allah salaatu daawud wa ahabu siyaami ila allah siyaamu daawud nee na julli gi yàlla gën a bëgg ci naafila mooy naafila yonente yàlla daawud koor gi yàlla gën a bëgg ci naafila mooy koor gu yonente yàlla daawud ñu ne ah mu ne yonente yàlla daawud da doon tëdd première guddi gi bu reeree tëdd nelaw ba trois heures du matin mu jóg julli julli julli julli ba six heures mu noppal tuuti julli fajar continuer tudd yàlla kon yéen sama xeet jël leen lu mel nii ku bëgg di naafila guddi del teel a tëdd del noppal mais yonent yàlla Muhammad dina dina roy ku baaxul ndax yonent bi dina roy ku baax surtout di jaamu yàlla mu ne ci wàllu koor yonent yàlla a day woor tey dog suba moo tax ñu ko mu siyaamu daawud mbokk yi du jeex ngëneel yi nekk ci yonent yàlla daawud kon yàlla ñu yàlla jéggal yàlla yërëm ñu yàlla yàlla boo ñu jàppee suñu dof yi ci suñu kanam yàlla ñoo ngi ñaan nga dellu ci leen tuubal leen nangul leen ak tuub yàlla ñoo ngi ñaan nga jéggal ñu allahumma ahdina fi man hadayt wa aafina fi man aafayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma aatayt wa qina bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadillu man walayt ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم